الله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم jërëjëf sëñ Afiyatu Buso jàng léegi te ñu du ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa barkeel ko yaatal ab dënnam wattuloo ko alquran déggloo ko aaya yi di ko ñaanal mbooleem jàngkat yi mbokk yi ni ki ngeen ko baaxoo teewe ci guddik ashrin muharram gi daairatu itihaadi atbaa al xadim li taawun wa tamassuk bi diin al qawim dañ ci daa baaxoo def waxtaanu xam-xam woo xam ne dañuy seet tomb boo xam ne jort nanu ne dana yitteel jamono nu woo ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàll googa ñu jot li kooko jariñante ci ak sunu mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi jataay bi nag day jataay boo xam ni ñu ko waxee jataayu xam-xam la moo tax kuréel yi yëngu ci xam-xam ñaare ci lañ ci invité du caagi ne dañ koy ubbil mbooloo mi yëpp loolu moo tax ngeen gis ñu ko defee ci barab yu mel nii waaye nag tëjalu luñ leen ko ñàkk gi ñu leen ko ñàkk tëjal moo tax ñu di ko jàllale ci plateforme yu wuute yi euh, rawatina nag ci sunu chaîne yi nga xamante ni moom la am ci YouTube ak xeeti boroom yeneen kuréel yi te wut ginnaaw bi dañ ko jàllale ci rajo yi ak ci lenn ci télé yi nga xam ne dañ ko soxla di ko jàllale su boobaa ñu baree bari xëy na duñ teewee jotaay bi ci seen jëmm wala duñ ko teewee ci waxtu wi waaye dañ ci mën a jotali ko ndax jot nañ ne luy jariñ jullit yëpp la euh, tey nag ni ki ñi ko kilifa yi tërale woon dañoo fas yéene waxtaane ci eh, yar ak ni mu amee solo ci aw askan éducation ak ni mu amee solo ci aw askan eh, ngir bañ a guddal ndax waxtu wi la bañ ñu jël ci lu bari dañ leen di gaaral ñetti tomb yi nga xamante ni moo la moo aju ci waxtaan wi gaaral itam tomb bu nekk kan moo koy jottali ko tomb bu njëkk bi mu ngi wax sëriñ bi ak ni mu déggee tarbiya tarbiya ca sëriñ Touba ku wax sëriñ Touba xam ne moom daanaka li ñuy tënkee ab woote moo yoonu tarbiya yoonu yar loolu nag jot naa ne suñu ko waxee ba noppi yàlla dimbali nu sëñ Mbàkke am woyof ak jotug ñëw war noo euh, gaaral tomb boobu mën nañ ne am nañu tawfiq ci wàllu googu sëñ Mbàkke Abdourahman moo féeti sama ndajoor moo topp ci man moo topp ci man ci toogaay bi laa bëgg wax daal du ku ñuy présenté di ci yoon wi ñëpp xam nañ ko ci mbind ñëpp xam nañ ko ci ay conférence muy jàngalekat di gëstukat ci lislaam ak ci yoonu murid kon foofu laay yem ci moom ñaareel tomb bi ne dañ ciy waxtaanee waxambaane yi ak violence Baye Mourtada waxoon na ma 2020 ne ma violence ci wolof mooy xëyis mooy jëfandikoo doole ak nag lëkkale ko ak politique senegaal Sénégal kon loolu itam suñu ko waxee xam ne jamono jii laaj na ñu waxtaane lu mel noonu ndax xam ngeen li fi xew rawatina su fekkee ne ay élection jub na moo xam nag xiis googu wala unf boobu mbaa violence boobu ciy wax la wala ciy jëf day bari lool léeg sax ay bakkan da ciy rot te loolu nag nu jàpp ne am na ak lëkkaloo gu mu am ak yar bi ñu leen yar nu jàpp ne itam yoonu murit ak woo bi sëriñ beegum njàngaleem waroon naa mën a moytuloo nit ñi loolu su fekkoon ne topp nañ ko loolu nag sëñ Fallou Bousso Xasan mii moo ñu koy defal moom itam ñëpp xam nañ ko jàngalekat la gëstukat la rawatina ci lu jëm ci wàllum societé ñun ñëpp du caagi ni sax tey jii la fi njëkk ñëw ni ki nu mel noonu laa mën a wax ci sëñ Mbàkke Abdourahmane euh, sëñ Fallou Bousso moomu moo topp ci sëñ Mbàkke Abdourahmane fii di ko ndeyjoor sol lu bële li su ko defee tomb nag bi mujj ñu ngi fa yéene waxtaanee naka la waajal ndaw ñu yewwu am solo ak lan la mën a def ci euh, soqali askan wi waajal ndaw ba ñu yewwu ni mu amee solo ci soqali askan wi loolu sëñ Abdou Qadir bu so cheikh bi moo koy def moom itam gëstukat la jàngalekat la euh, am na ci ñenn ñoo xam ne jot nañ koo miin ñi ci des te nekk fi tey incha allahu taala ñu xam firndeel loolu ñu wax ak itam lan moo tax nu tànn ko ci biir waxtaankat yi ñetti tomb yooyu daal mooy tomb yi nga xam ne moom lañu fas yéene jot li konte incha allahu taala kon ni ma ko gaareel noonu mu toftaloo noonu la ñu toftaloo ci jël kàddu yi imaam sëñ Mbàkke Abdourahmane moo jiitu am na fanweeri simili fanweeri minute ginnaaw bi sëñ bu Bousso Hassan moom itam am na fanweeri minute ginnaaw bi incha allah taala sëñ Abdou Khadir mooy tax am na fanweeri minute noonu ko fas yéene gaaral su jàllee nag du ñàkk ne dana am ci ay kàddu yoo xam ne ay xalaat ñoo xam ne ci euh, waxtaan wi danañ ci indi loo xam ne mën naa am dana yokk niveau bi incha allah kon sëñ Mbàkke bismillah ñu ngi lay ñaanal tawfiq suñu borom.